أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci suratu nisa di jël ñaari aaya aaya 102 ak aaya 103 ñaari aaya yi nekk sunu kanam bismillahi tabaraka wa taala sunu borom mu ngi nu ciy jàngal juróomi mbir bu ci njëkk mooy masruiyatu salaatul xawf wa bayaani kayfiyatiha yoon gi nga xam ne yoonal nañ ko santaane nañ ko jullik ragal mooy waxtu tiitaange jullit ñi nekk ci waxtu woo xam ne dañoo tiit amuñu dal su boobaa yoonal nañ ci ñoom ak julli waaye leeral na yonent bi leeral na julli googu naka lañ koy jullee ñaareel mooy taakidu salaatul jamaa bi haysu la tutrak xatta fi saati alxawf walqitaal danañ jàng tey importance su julli mbooloo nga xam ne dafa am importance ba ci jamono ju ñu tiitee sax duñ ko bàyyi ci jamono ju ñuy xeex sax duñu bàyyi julli mbooloo waaw mbokk yi kon su fekkente ne ci jamonoy tiitaange kenn warul ja bàyyi julli mbooloo ci jamonoy xare kenn warul bàyyi julli mbooloo kon ndax danañ ko laye beneen jamono kon danañ jàng wuyu yàlla tabaraka wa taala di ko zikr di ko tudd ginnaaw julli yi ci façon boo ko defee dangaa toog dangaa taxaw dangaa tëdd dangaa war a tudd yàlla tabaraka wa taala subhanahu wa taala danañ jàng saxal gi ñu saxal julli mu nekk farata ci war ko joxe ci ay waxtoom yu ñu xam kenn warul tardeel benn julli ci waxtoom rawatina nag julli goo xam ne farata la ñu utal ko waxtu kenn waru ko tardeel danañ jàng tey araam gi nga xam ne araam na ko doyadi ak lot ci jamonoy xeex bu ñuy xeex ak noon danañu tere ci jullit ñi ku ci yaafus ku ci wane yaafus wane ci ak lot wane ci ak doyadi waaye danañ jàng al istiaana ala alal qitaali bi zikrillah danañ jàng ci bu ñuy xeex ak noon yi bokk na ci li ñuy dimbalikoo mooy tudd yàlla tabaraka wa taala bokki jullit yi julli dafa am importance julli dafa am importance trop place am réy na ci lislaam li leen koy won mooy kenn du ko bàyyi moom julli même bu nuy xeex noonu yaa ngi nii nu jàkkaarloo kenn du bàyyi julli ndax noonu yaa ngi ni taxaw sunu kanam ci jamono bu mu gën a tare nag sax jamono gu ñu gën a tiitee du dagan ñu bàyyi julli ndax julli importance bu mu am julli ñi ci xeex bu ñuy xeex ak seen noon sax du tax ñu bàyyi julli alquran sunu borom subhanahu wa taala waral na ci sunu kaw farataay julli mu nekk lu war ci sunu kaw farata boo xam ne laa tasqutu anhum du wadd mukk amunu fenn fu nit di toll ban ne julli wàcc na ko da ngaa feebar da ngaa tukki da nga nekk ci jamono tiitaange da ngaa ñàkk da ngaa am da ngaa màgget julli wàccu la julli daal kañ la wàcc nit mooy bu ruu gi génnee ci moom soo mënul julli taxaw da ngay julli taxaw wéeru soo mënul taxaw wéeru nga toog te doo wéeru soo mënul loolu nga toog wéeru soo mënul nga tëdd soo mënul noo jullee baax na waaye wàccu la de foog nga def waaye léegi nag bu fekkee ne wax nañ julli fi yëpp du wàcc nit nga gis ay ponkal yu ne lëng ci Sénégal ne duñ julli boo waxee ñu ne ñun julli wàcc nañ wala ñun wàcceel nañ nu julli kan ma leen ko wàccal te tey ñuy jàng salaatul xawf jullik ragal kan kan moo leen wàcceel julli googu lan war a laaj kan kan moo leen jox ndigal ne ñoom ñooñu buñ julleeti mbokk yi julli du wadd ci kaw nit amul fenn fooy toll ba julli wàcc la bal yu addunaha dañ koy joxe comme niñ ko mënee lu tax wala na fiihi xayrun azim ndax yiwu rëy moo ci nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam biñ ko laajee mbir yi lu ci gën a baax lan la tont assalaatu fi waqtiha julli ca waxtu wa li ñuy njëkk a seet yowm alqiyaam mooy julli inna awalu ma yuhaasibi al abdu min amali yowm alqiyaama assalaa julli julli su julli gi baaxee sa lépp baax su julli bonee lépp bon na kon mbokk yi bu ñu bu ñu sàggane julli nanu fonk julli fonkloo ko sunu bopp fonkloo ko sunuy doom fonkloo ko sunuy mbokk fonkloo ko ñépp ci lu nu wër masruiyatu salaatul xawf kañ la ñu yoonal kañ la ñu yoonal julli ragal kañ lañ ko yoonal mu ne tusrau salaatul xawf fi kulli qitaalin mubaaxin yoonal nañ jullik ragal ci bépp xare boo xam ne xare bu dagan la xare bu dagan a xeex te qitaalil kuffaar comme tey buñ doon xeex ak yéeféer yi wal bugaat ak ñi bew jàdd yàlla subhanahu wa taala moo ne wa in xiftum an yaftinakum alladina kafaru nisa 101 yàlla nee na bu ngeen ragalee yéeféer yi fitnaan leen mën ngeen a julli jullik ragal mu ne wa qiisa alayhi albaaqi mimman yajuusu qitaaluhu wala tajuusu salaatu alxawf fi qitaalil muharram nee na ci jullig ragal googu la ñuy nattaale képp koo xam ne lislaam day xeex ak yow dangay xeex ak moom ndax lislaam su boobaa dañ ciy nattaale mën ngaa julli jullig ragal waaye nag xeex boo xam ne xare boo xam ne xare bu araam la kenn du ci wàññi julli xare bu araam jàngoon nañ benn masala bi ñu mujjee tafsir am na tukki goo xam ne kenn du ci wàññi julli waaye am na julli goo xam ne loo ragal ragal ragal doo julli julli ragal ah ban tukki lañ dul wàññi julli ban tukki lañ dul wàññi julli loxo yi jógut de te samedi bi passé lañ ko jàngoon am na tukki boo xam ne kenn du wàññi julli loxo yi jógul de gaa yi gaa yi loxo yi jógul de ay tukuloo rek laa gis ñu kër seen loxo ñu ñaaw na ana séeréer yi yan tukki lañ dul wàññi julli bismillah tukki mooy mooy yàlla tukki mooy yàlla kenn du ko wàññi waaye xeex boo xam ne tamit mooy yàlla la dafa haram kenn du ci wàññi julli kenn du ci julli julli ragal mbokk yi wa dalilu ala masruiyatiha dalil guy wane ne dañoo yoonal waa julli julli ragal ñëw na ci alquran ñëw ci sunna yonent bi ñëw ci ijma ñetti suuf si ci islaam yëpp ñëw na ci yàlla wax na ci yonent alayhi salaatu wasalaam wax na ci ijmaul umma wax nañ ci yàlla subhanahu wa taala fan la ci wax mooy aaya bi nekk suñu kanam mais bi ñuy jël tey ñu sunu aaya bi la ñu yoonal jullik jullik ragal sunu borom subhanahu wa taala mu ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأت طائفة أخرى وليأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فلتأتي ولا ولا فلا و أيوة بارك الله فيكم فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لم لو, تغفل لو تغفلون أسلحتكم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلوا عليكم ميلة واحدة فيميلوا عليكم ميلة واحدة فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما كون دليل بي مشروع بني يالا دي وني سونو بروم سبحانه وتعالى ci yoonal julli ragal mooy aaya bi sunu borom ne ñaar waa kon ñett la de waa kon dars bi ñett la benn bi laa gisuloon ndax dafa nëbbu fii ci kanam kon ñetti aaya la muy aaya 102 103 104 waa koy ñetti aaya yooyu la bu fekkee heure bi jot na mu ne yàlla nee na wa iza kunta fihim soo àndee ak ñoom su fekkee yow muhammad alayhi salaatu wasalaam ànd nga ak jullit yi ñuy xare di xare di xare ba waxtu julli jot wa iza kunta soo nekkee fihim ci ñoom fa aqimta lahum yow day na nga leen jiite waaw na nga leen jiite na nga nekk ci kanam kanamu mbooloo mi lan nga leen di jiite asalaata julli bu ñu taxawalee iqaama yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam na nga jiite julli gi su boobaa faltaqum na taxaw taifatum minhum benn mbooloo ci ñoom ñoom ñan ñoom saxaaba yi ñoom julli di nga àndal na ci am ñu taxaw maaka ànd ak yow na am ñu taxaw ñooñu nga xam ne ñoo ànd ak yow na am ci ñu taxaw suñu taxawee lu ñuy def fal yaxuzu nanu téye aslihatahum seeni ngànnaay gis nga kon mbooloo mi dañuy xaaju deux quarante personnes lañ julli jot na nu ñuy def dañuy xaaj mbooloo mi ñaari xaaj vingt yi dañuy taxaw yor ngànnaay jàkkaarloog noon yi ñeneen ñi daal di julli waaye mbokk yi est-ce que jàppoon ngeen tey su fekkente dañuy xeex ak ngànnaay yu sophistiqué yu ñor avion yi di naaw di waddali bomb kalachnikov yi ratatatatatat ay fusil longueur cent quatre-vingt-dix mètres est-ce que kon yàlla dina wax julli di nan taxaw na ñuy taxaw ñeneen ñi di julli ah dina ko wax ah waaw fii dafa am anamu xeexin dañ ñëw ci kanam suñuy julli julli julli julli wa julli ragal nan lañ koy jullee maa boobu anamu xeexin la chaque jour l'islam du freiné benn place rek tënk jullit ñi dañuy dem selon texte yi ak addina bi ni muy ni muy ni muy avancé di dem di ànd ak moom di dem fekk togguwuñu ci dars yi ci texte yi lu araam xam nga xel nanguwul tey ngay xeex ak ay yéeféer nga dem di jël jaasi xel nanguwul loolu nga dem naan marché utal ma jaasi ju ñaw nga jënd jaasi wala yóbbu koy soudeur métallique bi naan ko ñawalal ma ko te mu leer na ne ki ngay xeexal moom lu muy indi kalashnikov lay indi waxuma sax fetal mais kalashnikov lay indi xam nga loolu jaaduwul kon moom li muy ut li muy indi yow soo mënul indi duubalam lu ko ëpp doole bul yées loolu dafa bokk ci wa iddu lahum mastataatum min quwa yàlla ba mu nu waxee loolu la pare ci ñun bi yàlla neenu na ngeen préparer la force na ngeen ut doole doole jooju na koy firee wa iddu lahum na ngeen leen waajal mastataatum lu ngeen mën min quwatin ci kàttan nan la ñuy tënkee loolu ndax dañ naan doole jooju mooy dem entraînement yi rek après dem yoroy kese wala doole jooju mooy fetalu kese bu àndul ak imaan wala doole jooju nekkul xam-xam wala doole jooju nekkul alal ba lépp loo xamante ne daf lay may doole loolu nga war a wut xam-xam bii tey ñuy ajjaaral sax ba desal ko ginnaaw ci la bokk borom bi nee na ko wa iza kunta fihim boo a nekkee ñoom fa aqamta lahumu salaata ñu liqaam na nga leen jiite julli gi fal yaqum na taxaw taifatun benn kuréel minhum ci ñoom ma aka ànd ak yow ñooñu wal yaxusu nañ te aslihatahum seeni ngànnaay mu ne fa iza sajadu bu ñu sujootee fal yakunu nañ nekk min waraikum ci seen ginnaaw beneen mbooloo bi nga xam ne julli ñoo ngi julli ñeneen ñi julliwul fan fan la ni nekk ci ginnaaw ñii julli lu tax loolu pour aar leen pour bu noon yi bëggee ñëw bu noon yi fexee di ñëw balaa ñuy dal ci kaw ñii julli ñi julliwul aar leen jëflanteeg ñoom gis nga mu ne fa iza sajadu bu ñu sujjootee fal yakunu nañ nekk min waraikum ci seen ginnaaw wali buñ defee loolu ñaari rakk wala benn rakk fal yaati na ñëw taifatun beneen kuréel uxra beneen bi lam yu sallu ñi nga xam ne julli wuñu woon fal yu sallu nañ julli maaka ànd ak yow julli nañ ñaar ñaar ñi julli mbooloo mi julli ñaar rakk dañuy sëlmal dem taxaw fa ñee taxawoon yore ngànnaay yi ñeneen ñi taxawoon ñoo def nan ñooñu daal di ñëw jëlaat place yi ñuy julli ñoom daal di julli yeneen ñaari ràkk ay des waaw après insha allah après ñu ñu après insha allah yu dugg ci fekkee mën naa nekk ndax dafa bëggaay door la bomb ah mbokk yi mu ne gaa yooyu na ñu ñëw fal yakun nañ nekk min waraikum ci seen ginnaaw wal yaati na taxaw taifatun beneen mbooloo bi uxra ñeneen ñi lam yu sallu julli wuñu fal yu sallu nañ julli maaka ànd ak yow ñooñu lay def ñooñu dañuy mottali ñee dañuy julli ñaar dem ñeneen ñi daal di ñëw julli leen ñaari mu ne waaye wal yaxuzu hisrahum nañu def attention de ñu moytandiku waaw nañ def attention bu baax a baax a baax a baax comme ñële niñ doon garder ndax yéeféer yi moom du ñu mës a sàggan fal yaxuzu nañu jël xisrahum seen moytukaay dañ def attention waaye wa aslihatahum ak seeni ngànnaay nañ ko téye nañu moytu nekk en garde bañ a nekk alerte ba pare téye seeni ngànnaay yi bañ a yox yox yi lu tax yàlla mu ne wadd bëgg na allazina ñi nga xam ne kafaru ay yéeféer lañ law taxfuluun ay waay ngeen sàggan waaw julli jot rek yéen ñëpp ngeen dem jàpp am leen lu ngeen def rek teg seeni ngànnaay naan dañuy julli gars yi duñ sonn dañuy bàyyi ba ngeen sujjóor rek kenn du siggi pourtant defoon nañ ko fan yi Égypte de dugg ci benn jàkk sape premier bi kenn siggiwul ñëpp lan rey gis ngeen kon yàlla moo nuy nettali yàlla moo nuy wax kon gis ngeen fekkee ne julli importance bii la am ba ci xeex yéeféer yaa ngi nii yàlla mu ne divisé wu leen deux ñenn ñi xeex ñenn ñi wattu leen suñu su ñooñu jullee ak yow ñaari raaka pare sëlmal yow yaa ngi taxaw ñeneen ñi dem jël ngànnaay yi taxawaat moytandiku def attention bu baax ndax yéeféer yi bëgg nañ ñu sàggan rek ñu écraser leen benn yoon kon ci waxtu jàmm nag mbokk yi kon ci waxtu jàmm ndax jullit war naa sàgg na julli ah waaw ndax ay ataayal booy julli jonne de noonu nañ caayin ba pare quoi nañ ko dóor mu daanu loolu ngay dégg ndakaar waaw xaaral ñu def nangam waaye xaaral ñu lii waaye nañ entraînement ba pare nanu nanu nanu nanu ndeysaan benn mbokk léegi léegi daf may nettali benn xale bi def examen ci examen bac bi passé limaamu lay jour vendredi nee na vendredi jumaa jot xale bi daal ne def genn wàll daal ne surveillant bi man ma bëgg a julli ji de mu ne ko toogal fi laa nga dindi sa lii nga am da ngay julli ji booy bi ne ko léegi kon maa ngi dem matière bi ngeen may ma zéro maa ngi julli ji daal dem julli ji ñëwaat faaj dugub ah comme dafa ne man matière bi may leen ma zéro mu jëlay bagage am bëgg a dem fekk waa ji ko waxoon loolu mu ngi wuy téléphone ne ko nii mu taxaw waaye wuyo bare ne ko xam nga boo yow ku dangereux nga loolu dama bëgg a booleeg yàlla xam nga yow ah yow léegi dama bëgg a jaxaseeg yàlla yow yow booy da ngaa dangereux waaw waaw léegi toogal nga eggali gis nga yàlla man kaana lillaahi rek kaana allaahu lahu ku nekkal yàlla yàlla nekkal la wallaay yàlla boo xëyee ci toolam doo wàcc ay loxoy neen am na jigéen joo xam ne jigéen laa wax de jigéen xam nga tam xarit gars yi dañuy dem wali ji dugub fi muy wal dugub ñu dégg tisbaar ñu nodd gars yaa ngi teg affaire yi rang ah seen koog yi nu mu tuddati yooyu ñuy def dugub yi léget yi xale bu jigéen bi dégg ñu nodd rek mu daan ne ah man de maa ngi dem julli ji daal di dugg benn kër mu ñaan ndox ñu may ko mu daal di jàpp bi muy dem niñ naa ko xam nga sa leket bi kenn du la ko puusal moom bàyyi na leket gi dem julli ci bi mu jullee pare mu ñëw gisul leketam mu topp rang bi mu ñëw fekk borom machine bi wal na ko ba teg ko côté mu ne ko ah yaa moom li mu ne waaw mu ne ah lu nga jël ko mu ne ah dañ koo puus bi ba mu yegg si ma xam ne boo ñëwee di nga fay ma laaj ci ñu ne da ngaa julli ji ma wal ko tegal la ko fi ba nga ñëw gis nga kuy liggéeyal yàlla yàlla du taaral sa liggéey mu waaye boo fi nekkee di jéem a yab yàlla naan waaye fii ku fi liggéey dañ lay ku fi julli dañ lay dàq yàlla day def ñu dàq la am na benn société boo xam ne fii Ndakaaru tubaab bi dane tëll rek gaa yi doon julli yëpp daw ñëpp a daw fi ñu rukkoo woon ñëpp a daw ñu ne leen tubaab baa ngi ñëw ñëpp a daw kenn rek rukkoo sigi julli pare tubaab bi xool ko ne ko yow rek laa may ngay julli bi ndax yow rek yaa dëgg ñi ñi ñëpp gëmuñu yàlla yow rek yaa gëm yàlla ñi gëmuñu yàlla ku gëm yàlla doo daw wax na dëgg kon gis ngeen fekkee ne loolu lañu yàlla sant nañ julli ah mbokk yi kon julli kenn waru ko tardeel wadda bëgg na allazina gaa ñi nga xam ne kafaru ay yéeféer lañu law taxfuluuna ngeen sàggane an aslihatikum ci seeni ngànnaay wa amti atikum ak seeni bagage fa yamiluuna ñu jeng aleykum ci yéen maylatan waahid benn jeng ñu def leen benn benn benn benn lan benn dóor rek yéen ñëpp ngeen de waaw benn bombardement benn dóor rek bu ngeen sàgganee seeni ngànnaay sàggane seeni bagage yi leen di baare yi ngeen di xeexee lu ñuy def fa yamiluuna alaykum maylatan waahida benn jéng la ñuy jéng ci yéen rek massacre leen ngeen jeex benn yoon wallahi gis ngeen kon jullit chaque jour dafa war a nekk alerte nekk vigilant ci sa lépp ndax yàlla moo ne yéeféeri dund ma sa bëgg te li ñu bëgg mooy ngeen sàggan ngeen sàggane rek ngeen sàggan occasion bi nag nekkul rek xeex ci lépp la même suñu dund gi ci jàmm gi ñu nekk bu nu sàgganee rek gars yi dañuy dugal yu bon mooy yi ngeen di gis ni góor jigéen yeeg yàmbaa beeg sàngara si tey tey dama demoon Dakar taxi bi ma nekkoon maa ki ma àndal fu nu romb panneau publicité yi ma ne ko xoola sàngara si partout dañuy publicité kanetu sàngara bi xaw ma gis ngeen ko xaw ma gis leen ko partout panneau publicité yi kas kanetu sàngara moo ci nekk te nag yombal ko ba mu yomb waaw yombal sàngara si ba mu yomb ba mu yomb léegi sax dégg naa am na ay mbuus 100 francs léegi ñooñu pour lan la ñan lañ ñoo koy naan pour na ñëpp yàqu julli ñi nag ñoo war a bàyyi xel seen bopp lii du ci xeex kese wadda allazina kafaru law taxfuluun an aslihatakum wa amtiatakum fa yamiluuna alaykum maylatan wahida yàlla neen wala junaha alaykum amuleen bakkaar in kaana bikum azan bu fekkee da ngeen a am lor al aza mooy lor lor goo xam ne min matarin taw moo ko indi aw kuntum wala ngeen nekk marda ñu feebar an tadawu ngeen teg aslihatakum seeni ngànnaay gis nga fekkee dafa taw yëf yi xe taw ba poto poto ñëw nga teg sa ngànnaay di defaru wala da ngaa feebar nga teg sa ngànnaay di noppalu su boobaa amuleen bakkaar bu ngeen bàyyee ngànnaay yi kon loolu su fekkee ne yàlla fii la ñu yemal ci ñaar yi kon lan ngay dégg ci aaya bi mooy ngànnaay yi kenn waru koo teg chaque jour ngànnaay dafa war a nekk ci mbagg yi loxo yi tegu ci ñu bàyyi xel suñu bopp ne noon baa ngi sunu kanam allahu akbar kan lañ ko war a teg bu ñu amee ngant in kaana bikum azan min matar su fekkee taw bu fort moo ñëw ba mënatu leen déplacé leen di téye ngànnaay gis nga lii ñi dem Casamance danañ xam li may wax taw bi lu mu garaaw garaaw Casamance da ngay gis militaires yi ñu ngi sol ndox mbubu taw ak seeni casque mais terewul ñu ngi taxaw ci tali wi ngànnaayu boo leen rombee ndox mi nu ngi sotteek seen kaw ak oto yi non da nga da nga leen di yërëm bëgg leen léeg-léeg nit romb leen naan wax xol xol xola ñi fekk xamoo ne ñoom yow yaa leen taxa taxaw ci taw boobu sa jàmm moo leen fanaan loo foofu te xoolal même bu fekkoon ne 4 heures du matin kooku foofu lay taxaw te dañ leen di tasan ay mètre mètre mètre duñ sax nekk ndoo mbooloo te waa jooju taxaw foofu ci ndox moomu di sotti ci àll bu lëndëm boobu ci ñax yi mu kamu fulewu ba nuroog ñax yi soo xoolu dëgg dëgg dëgg doo xam sax ndax ni sa fi nekk da nga yaakaar ne garab la mais ni mu yoree arme bi ngay xam ne lii nit la kooku lu ko taxaw taxaw foofu yow mi nekk ci tali bi dem yow mi tëdd sa kër di nelaw ñoom ñoo tax nga mën a nelaw parce que ñoom buñ fa nekkul woon yow doo nekk ci jàmm kon gis ngeen loolu ngay xam ne li yàlla li ñuy wax chaque jour noonu noonu ku nekk ak moom waroo sàggan parce que noon bi ci sa càggante lay lay profito ci sa négli- négligence bu ndaw rek loolu lay am occasion daal lay def li muy def dem yoonam même même gis nga ñi ñi ñi ñi tafuwaate nii ñi tafuwaate bu ñëwee dend ak yow ci sa négligence booy négliger rek sa poche bi wala sa li nga yor lañ naan ko cas yóbbu dafa mel ne ci sa xel la ñuy dox buñ la xoolee tuuti nga ne nga occupé wu ci benn affaire seconde yu ndaw yooyu walaa ngay xalaataat nee nañ cas li nga yor dafa wàcc oto bi day daw ñaari minute nga ni nii eh ana ki toogoon fi gaa yi ne la dem na bu yàgg ci ay minutes yu ndaw rek waa ji moo tax chaque jour nit war a bàyyi xel boppam surtout nag sunu borom subhanahu wa taala moo nuy wax li ñu leen di wax ba chaque jour mooy alquran wax lii moo leen di wan ne ñëwul rek pour ñu koy jàngal ñi dee ak di ko barkeeloo ak di ko diwóog di ko sangu waaye alquran daa ñëw pour ñu xam fu nu teg sunu tànk alquran bi loolu la pour ñu xam fu nu teg sunu tànk ci sunu dund lay wax samedi passé ñu ngi doon wax ci julli wàññi julli xoolal tey ñu ngi jàng jullik ragal sunu borom ne maa ngi leen di yëgal ne waxuzu na ngeen jël hidrakum seeni moytukaay na ngeen def attention waxudu hidrakum na ngeen def attention na ngeen moytandiku fu ngeen mën a nekk na ngeen vision waxudu jël leen hidrakum seen moytandikukaay yi na ngeen moytu bu leen bàyyi arme yi takk leen dàll yi jaas yi na tegu ci na ci loxo yi tegu na nekk ci biir mbar mi waaye na loxo yi téye ci bopp bi su ngeen di dox xam leen fi ngeen di dox seeni ndeyjoor ak seeni càmmoñ na ngeen fexe ba xam li fi nekk bu tëdd jotee bu ñëpp nelawandoo su julli jotee bu ñëpp julleendoo gis nga chaque jour yàlla daf ñuy bàyyiloo xel sunu bopp yàlla mu ne waxuzu jël leen xisrakum seen mooy tëndikukaay na ngeen yëg ne inna allaha naka seen boroom sunu boroom moom yàlla a adda xaroona prépareel na lil kaafirina yéeféer yi azaban mbugal muhinan bu doyati waaw yàlla sunu boroom subhanahu wa taala mooy ki xaroo ki waajal nooni yàlla yi mbugal mu méttee méttee métti ñu ñëw tuuti rek ci julli ragal wax nañ sànq aaya bi nga xam ne mooy aaya bi ñu jeexal léegi daaneel ko aaya bi moom la ñu farataale moom la ñu yoonale jullik ragal ni jullik ni ñuy wàññee julli ni ñuy boolee julli noonu la amee jullik ragal loolu mooy dalil bi ci qur'an ci sunna sax na annahu sallallahu alayhi wa sallam sallal xawfu fi arba mawadi yonent bi julli na jullik ragal ci ñeenti barab ñeenti xare yonent bi ànd ak sahaaba yi julli jot yonent bi julli julli xare fan fi gazwatu zaatu riqa ci xare boo xam ne riqa la yonent bi wàññi na fa julli ak batnu nax la yonent bi wàññi na fa julli ak usfaan yonent bi wàññi na fa julli ak zuy qirad yonent bi wàññi na fa julli ñeenti barab yi yonent bi wàññi na fa julli wa qad sallaha marrat kasira yonent bi sax am na ñu ne julli na ko ay yoon yu baree bari warada fi ahadis fi sifati salatiha ñëw na ci ay hadis yoo xam ne sax dañoo wax yonent bi naka la ko jullee mbokk yi wa ajma asahaba sahaba yëpp boole woo nañu ala fiiliha ci jëfam moom julli lan jullik ragal sahaba yëpp nangu nañ ko wa sallaha ali imam ali julli na ko abu musa al ashari julli na ko xuzayfatul yamani julli na ko waaye moom jullik ragal dafa am charte surutu salaatul xawf sarti julli ragal kañ la an yakuna al addu yaxillu qitaalahu sawaun kaana waajiban ka qitaali alxarbiyin walbugaat walmuxaaribin ka quttaa turuq almuqaasidin safaku dima wa xat muharramat li qawli taala wa in xiftum an yaftinakum sart yi mooy kañ la ñuy julli julli gi ragal ah mooy mu wéyoon mu leer ñu ne fitna am na am noonu a ngi nii sunu wet waaye ndax loolu kese mooy tax ñu julli julli gi ragal déedéet xeex kese la ah déedéet ndax nit xeex rek lay tiit ah même boo ragalee sa alal suñ doon tukki nii ñu ànd ñaari nit lañ ñu dem fenn foo xamante ne leer nañ ne fii bu nuy bu nuy kàbbar am ñu jël suñuy saak nu ñuy def kenn ki day julli kenn ki garde su paree keneen ki julli waaye ñoom ñaar ñëpp bu ne dañuy nan non non julli yàlla dina ko garde aqilha suma tawakkal am na yoo xam ne kenn du ko def di ci wote iman waa ji dafay dugg gëléemam yu maag madine bàyyi gëléem gi gëléem gi di lambar lambari ci mbedd yi yonent bi ne tëll na waa ko moom gëléem gi di wër mu ne maa ko moom ñu ne waa doo ko yeew mu ne damaa wàkkirlu ci yàlla indi na ko da nga koy yeew ba pare wàkkirlu loolu mooy diine da nga koy yeew wàkkirlu bitig bi ngay jaay su guddi jotee wàcceel bunt yi tëjal kànnaar yi korase ko seene ko un mbolde lal si yaada tëdd ci suufu bunt bi waaw loolu mooy wàkkirlu de waaye jaay ba ngoon nga dem tëddi ñu ne lii la la nga ne wàkkiru naa ci yàlla yàlla dina ko garde booy xëy suba ñu koy roñ su boobaa nag lan ngay am problème mooy ana yàlla est-ce que yàlla moom am na fekk yàlla moo defu la ko yaa ko def sa bopp loolu mooy iman de waaw mu ngoog
dafa am bi moo comprendre ci tafsir comme ñi nga xam ne ñoom ñoo dul xeex ñooñu lañu wax bu ñu té ñu bu ñu bàyyi ngànnaay loolu c'est évident mais ñi nga xam ne dañuy julli tam dañ leen ne bu ñu bàyyi seen i ngànnaay waaw man loolu loolu laa comprendre Hmm. jërëjëf kon suñu waree xeex rek mooy charte yi mooy noon baa ngi nii wóor noonu noon baa ngi nii waaye du ñooñu rek de ak ñi nga xam ne dañuy nekk ci àll bi di dogaale addu kalpa yi bandi yooyu dañuy suñu dañu war a xeex ak ñoom ak ñi nga xam ne ay agresseur lañ ak raykatu nit ñooñu tamit dañu war a xeex ak ñoom lu tax saa yu ñu ragalee fitna rek loolu mooy ragal fitna wa in xiftum an yaftinakum allazina kafaru saa yu ñu ragalee fitna rek ñëw na ñaareel bi mooy an yaxaafa hujumul adu nga ragal noon bi song la suba nga wàññ nga nga lan jullig jullig ragal wala lan asabru nga ragal gaynde yi lekk la su boobaa nga jullig jullig ragal wala nga ragal lab nga julli jullig ragal wala nga ragal lakk nga julli jullig ragal gis ngeen soo ragalee lakk suñ ragalee lakk mën nañ julli jullig ragal suñ su suñu ragalee lab ñu julli jullig ragal bu ñu ragalee àll bi li fi nekk songunu ñu def lan ñu julli jullig ragal ñëw na ci imam ahmad dégg nga bi mu koy yaatal mu ne wa sawaun kaana alxawfu ala nafs aw ilmaali fa yajuusu salaatu alxawf inda aljumhur mu ne moo xam dañoo ragal sunu bopp wala ñu ragal sunu alal su boobaa dagan na ñu daal di julli julli ragal loolu jumhur yépp nangu nañ ko loolu lañ doon wax sànq al ijma imam ahmad jëlee nañ ci moom mu ne sabata fi salaati alxawfi sunnatun ahadisun aw sabatun ayuha faala almaru jaaza imam ahmad nee na sax na jullik ragal mu nekk sunna ahadis yu baree baree baree bari dem na ba tollug ci ay juróom-ñaar mu ne benn bu ci jullit def dana dagan jaaza ibnul qayim nee na usuluha sitta sifaat wa ablaguha baaduhum aksar wa haulaai kullu ma raaw ixtilaaf arriwayat fi qissatin jaalu zalika wijhan fasaara sabaat asara mu ne imam ibnu qayim nee na jullik ragal dem na ay cosaanam ba mu nekk anam yu baree baree baree baree bare ci ay melokaan yu ñu koy defee mu ne ñenn ñi sax saa yu ñu gisee benn riwaaya dañ koy mu mu am wuute ñu daal di ko ci yokk ñu daal dem ba mu nekk sabaata asara fukk ak fukk ak fukk ak fukk ak juróom-ñaar benn bu ci nekk am nuñ koy defee mu ne benn bu ci nekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na ko ndax ni mu amee ixtilaafu riwaayaat yi ñëw na benn sifa bu njëkk bi après incha allah bu ñu amaatee dars ñu yeggali aaya bu ñu amaatee dars ñu jël yeneen sifa di des am na benn sànq bu ñu wax mooy bu mbooloo mi di julli mbooloo mi nekkee ñaar fukki nit ñu xaaj ko fukki nit ñi julli ànd ak yonent bi yeneen fukki nit ñi nekk seen ginnaaw ca xaw di leen di leen aar yore seen i ngànnaay beneen sifaat bi mooy rot na ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy xadisu xansama xasma al ansaari radiallahu anhu mu ne waqat ixtaarahu al imam ahmad imam ahmad moom ci ngiram bii la tànn al amalu biha moom bii la tànn li annaha asbahu bi sifati al mazkura fi al qurani karim ndax nee na melokaan bi li tax imam ahmad tànn ko moom moo gën a dëppoo ak bi alquran wax ne moom la ñuy jullee jullig ragal bi alquran wax mooy bii ñu doon wax léegi léegi mu ne wa fiha ixtiyaatu salaat wa ixtiyaa lil xarbi wa fiha nikaayaat bil aduw wa qad faala alayhi salaatu wa salaam haadihi salaa fi gazawaat zaatu riqa nee na julli googu yonent bi alayhi salaatu wa salaam julli woon te imaam Ahmad tànn ko nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ngi ko defoon ci xare bu ñuy wax zaatu riqa mu ne wa sifatuha kama rawaha sahl mu ne melokaan bi mooy comme ni ko sahl solo hiya anna taif saffat ma annabi benn mbooloo day sàppe ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam anna taifa benn mbooloo saffat dañuy sàppe ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa taifa beneen mbooloo bi waaw mu ne beneen mbooloo bu ñëwee ñooñ fu ñu nekk wi jaaxal aduw nañ nekk côté noon bi noon baa ngi fii kon mbooloo ba bu ñëwee foofu la ñuy baare noonu yi duñ nekk fii yéen ngeen taxaw fii déedéet da ngeen di nekk ci ñi jàkkaarloog ñoom ci kanamu noon bi foofu ngeen di nekk fa salla billati maahu rakka mu yonent bi ànd ak ñi nga xam ne ñoo rakka ñoo sàppe woon ak moom daal di julleeg moom rakka summa sabata qaiman après mu daal di jóg taxaw moom yonent su yonent taxawee wa atimmu li anfusihim ñu mottalil seen bopp su man saffu wa saffu wi jaxal addu ñu daal di dem ñoom ñu taxaw ñoom gaa yooyu dem taxawi ji fa ñee taxawoon ñu daal di jàkkaarloowaat ak noon bi wa jaat taifatun uxra mbooloo mbooloo mi daal di ñëw ñeneen ñi nga xam ne ñoom julli wuñu woon ñoom ñu ne def fa sallu bihim rakka mu daal di ànd ak ñoom rakka daal di julli waaw maa ngi ñëw gis nga moo tax wallahi yonentu alayhi salaatu wasalaam bu ngeen jàngee siira am na sifaat am na sifatu saaniya am na sifatu saalis ay sifaat yu bëree bëri la pour yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale naka la ñuy jullee jullik ragal jullit ñi buñ ci def dana wér ci ñoom dana doy ci ñoom waaye benn bu ci nekk da ngay xam ne yonent bi nekkul woon ku ñëw rek pour pour affaire barkeelu tey bokk na ci li alak jullit mooy def diine lislaam diine barkeelu ak diine yaafuus diine yambare kenn avancé wul kenn xa déedéet diine ji dafa ñëw pour nit ñi dund dëgg xam li yàlla bëgg ci ñoom moo tax yonent bi bàyyiwul lenn léegi nag naka la ñuy jàngale ba jàngale ñu julli ku mel nii jàngale ñu julli ragal jàngale ñu lépp nga gis ay nit yu yaafuus du ñu julli ci jamonoy seddaay jamono boo xam ne jàmm moo am jàpp ngi nii ñu ngi nii ci jamono jàmm lan nekk waaye xam ngeen ne jàkk yi duñu fees kañ la jàkk gëj a fees fajar ah beneen bi mooy xoolal julli mbooloo ni mu amee importance ci xare noonu yaa ngi nii di ñëw ñu ne na ngeen mbooloo de il faut ilimaan bi nekk ci kanam ñeneen ñi ñëw taxaw la ilaha illallah kon bu fekkente ne du du xeex est-ce que war na noo julli kon te julli wuñu mbooloo xoolal niñ ko ni ko yàlla ni ko yàlla organisé même mbo xare la ñu ne da ngeen di julli julli mbooloo ñëpp ci ñun ñun duñ julli mbooloo ñëpp ci ñun bëgguñu julli mbooloo loolu kenn du ko def foog ñu dellu si waat sunu xel sunu diine xam ne sunu borom subhanahu wa taala dafa bëgg nu dund diine ji à la lettre pas rek di ko làmbatu sunu borom ne fa iza qadaytumu salaat bu ngeen paree julli hmm, fazkurullah tudd leen yàlla gis nga yéen ñi nga xam ne da ngeen naan euh, waaye yéen yenn saa yi nga julli ba pare rek jóg ñu ne am na ñoo xam ne du ñu ñaan am bu ñu sëlmalee rek dañuy jóg waaw julli nag ñaan ci la bokk waaw ñun dañuy ñaan toog leen di di yooyu kenn du ko def yow kay li nga gëm def ko nga bàyyi kii li mu gëm mu def ko waaye fal force man li may def loolu la ñëpp di def loolu du diine sunu borom ne fa iza qadaytum salaa bu ngeen paree julli fazkurullaha tudd leen yàlla qiyaaman da ngeen a taxaw kon ku mu neex mu jóg dem wa qu'udan da ngeen a toog wa ala junubikum da ngeen a tëdd kon ku mu neex sax mu tëdd ci masa ngi tudd yàlla ku mu neex mu jóg dem di xëy di jëli oto bi di tuddaale yàlla ci yoon bi kon du force waa ji toog di def ay askar mun na ko def ci yoon bi fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ñetti boor yépp yàlla nee na mën nañ ko faa tudd gis nga te zikrullah mubaax fi kulli zaman wa fi kulli makaan tudd yàlla laajul njàpp laajul sama kaw lal laa tëdd déedéet laajul fenn rek nga dul tudd yàlla fenn fan la dul tudd yàlla ci biir duus feneen tuddal yàlla ba mu neex la feneen tuddal yàlla ah allah allah mbokk jullit yi sunu borom ne subhanahu wa taala fa izat ma antum bu ngeen demee ba dal léegi xare amatul dal am na fa aqimu salaa taxawal leen julli dal am na xeex amatul na julli gi mat fa izat ma antum bu ngeen dalee xare amatul ah zahabal xawf tiitaange dem na lépp am na al amn sécurité am na lu xew fa aqimu salaata taxawal leen julli na mat inna salaata naka julli kaana nekk na alal muminina ci way gëm yàlla kitaaban farata mawquutan bu ñu utal heure léegi nga gaa yi di julli suba ay ay ay midi nga gis paa bu nelaw ba midi génn ci biir néegam taraxlaayoo sarwet dugg ci salle de bain bi paccax paccax yi génn lal si jaada bi dóor ñaar raaka ñëw na la noo biig dama sonn quoi ala nga gis jigéen ñoo xam dañuy nelaw ba heure bu leen neex kenn du leen yee am na fi góor ñoo xam ne mu yee seen jabar jógal julli heure bu leen neex la ñuy julli bàyyi ba midi nga gis kuy julli suba midi loolu musiba la wala nga gis ku yendoo liggéey ba ngoon jot ñëw dajale julli yëpp rëppax rëppaxee ko waxee mu ne damay fay xaar leen ma fay wala ma dóor affaire yi ñu daanuñu góo loolu diine de julli mbokk yi farata la dañ ko utal heure mu ngi nii aaya baa ngi nii inna salaata julli kaanat nekk na alal muminina ci way gëm yàlla yi kitaaban farata mafruud ah fardan zaatu waqtin muayyana tuadda fihi la tataqaddamuhu wala tataaxaruhu anhu julli kenn du ko avancé kenn du ko jiital yenn saa yi nga gis kenn noonu damay tukki ah moom nag 4 heures du matin laay dem damay julli suba doog a dem loolu daganu de amoo droit avancé julli amoo droit arriéral ko lu dul ci charte ngay def ngay boole ay julli jam u taqdim ak am jam u taaxir te su boobaa suba bokk ci ak ban ah timis ci la bokk de jàpp naa ay nit de ah ak ban ah géej ci la bokk de yan julli la ñuy boole tisbaar takkusaan tisbaar takusaan dañ leen boole bu ñu neexee ñu avancé ko wala bu ñu neexee ñu arrière ko ak ban timis ak gée waaye suba moom kenn am bokk ci kenn du ko boole borom bi nee na wala tahinu bu leen doyadi waaw bu leen doyadi bu leen lot bu leen yées bu leen yambare fibtiraa il qawm ci uti nit ñi sàkku ji leen wëri yéeféer yi bu leen ci yambare de bu leen nu lambare pour uti wëri yéeféer yi xeex ak ñoom mu ngeen leen wër in takunu taalamuun su fekkee yéen da ngeen di mettitlu am na fu ñu leen jam dagg nañ seen bopp seen tànk dagg na wala seen bët tuur na fa innahum ñoom yaalamuuna ñoom tam ñu ngi mettitlu kama taalamuuna comme yéen ni ngeen di mettitloo jaasi kay bu dalee fi jaasi ji dal bu dalee yéeféer day métti bu dalee jullit day métti waaw ñi ko ñi am na ñu ñu rey ñee tamit am na ñu ñu rey ñi am na ñu ñu jam ñee tamit am na ñu mu jam yéen jullit ñi bu leen wax ne ah ñun kat dañoo ànd ak yàlla dara waru noo laal ñun kat ñun kay dañoo war a yóbbu vingt personnes vingt personnes yi daal di ñëwaat bu kenn dee bu ñu jam kenn bu ñu dagg loxo kenn déedéet ah ma ne yàlla nee na bu ngeen di métti lu ñoom tamit ñu ngi métti lu comme yéen ñi ngeen di métti loo ndax mbir yi xeex kese la waaye nag yéen fenn rek ngeen leen di rawee mooy lan wa tarjuna yaakaar ngeen min allahi ci yàlla maa laa yarjun ñoom luñ yaakaaru allahu akbar yéen yaakaar ngeen aljanna yaakaar ngeen yërmande yàlla yaakaar ngeen ndimbalam yaakaar ngeen yàlla bëgg na leen ñoom nag amuñu loolu kon yéen yéen a leen tane wa tarjuna yéen yaakaar ngeen min allahi ci seen borom maa laa yarjuun ñoom lu ñu yaakaarul na ngeen yëg ne wa kaana allahu yàlla musta deñ aliman di xam hakiman di xereñ moo tax mu tëralal leen loi yi pour mu sàkku ci yéen ngeen appliqué ko ndax moom yàlla mooy ki xam bi mu xamee ba pare mu nekk hakim mu xereñ ci xam-xamam munoon naa wax ne bu julli jotee julli leen rek teg leen fetal yi teg leen jaas yi ngeen julli gars yi ñëw massacré leen rey leen waaye comme yàlla hakim ku xereñ la moo tax mu indil leen application yi mu tëral leen doxalin bi pour bu ngeen ko doxalee yéeféer yi na ñi ñi gars yi muus nañ de gis ngeen ñi ñi ñi ah voilà mu ngoog kon mbokk yi lii mooy darsa tey ñu ngi ñaan buur yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk loo doon wax sànq nga ni bisimilah.